asalaamaaleykum mbok yi ñu dikkaat ci deuxième numéro bu tey di 27 euh, janvier euh, mbok yi euh, ñu ñëw indi leen information bi nga xam ne wax dëgg yàlla ñàkkul ne ñu bëri ñu ngi koy dégg te comprendre ko naan dafa am salaire yi dañoo yokk xam naa suñ ko. From peut-être ñu bëri comprendre ndaxte li ñuy wax ku fiscale te gouvernement bi euh, décidé ci bilancio 2020 bilan, bilancio mooy loi bi nga xam ne may nguuri Italie li jël dugg ci ak luy génn ci keesi nguur gi nan lañ koy séddalee looloo tax mbokk yi yi ci 2020 nguur gi ci seen ngañaay yi salaire am loo ne ko ci bonus Renzi 80 euros bii nag mu ngi tudd bonus newu fiscal euh, li may balaa ma koy euh, faram rek li may wax nit ñi nekkul ne sa employeur moom la nguur gi wax mu yokkal la saleer du loolu yokk bi nekkul loolu waaye yokk bi mu ngi nekk ci loolu ñuy wax ku cuneo fiscale cuneo fiscal mooy lan mbokk yi mooy yow la ngay gañe la ngay gañe ci sa busta paaga ak du loolu rekk ngay coûter entreprise bi ngay liggéeyee ndaxte ca la ngay gañe am na luñ lay dagg ci mbirum euh, taxe ak contributi waaye aussi am na loo xam ne ki nga xam ne moo la jël di la liggéeyloo moom it loo xam ne dañ koy dagg ci xaalisam pour boole koog liñ dagg ci yow werse ko nguur gi loolu mooy ku néew fiscal maanaam képp koo xam ne ñu ngi ko xayma nag ne li nga xam ne dañ lay dagg boole liñ dagg sa patron pour verser ko góor gi dina dem ba ci quarante six pour cent presque jege na presque moitié li nga xam ne moom ngay gagné net ci sa busta paaga presque brut brut bi sax lay wax presque moitié bi lu ñuy dagg la ci yow ak lu ñuy dagg ci sa patron versé ko nguur gi loolu mooy cuneo fiscal maanaam la ngay gagné ak lañ la dagg dagg sa patron loolu suñ ko boolee la ñuy dagg sa patron moom doo ko gis waaye yow la nga dagg mu ngi lañ lay dagg mu ngi ci sa busta paaga suñ boolee la ngay dagg nag boolee li nga xam ne moom la ñuy dagg patron bi ci liggéey bi mu lay liggéeyloo ak salaire net bi suñ ko boolee yépp loolu mooy kunéewu fiscal muy différence bi entre la ngay gañe ak la nga la la ngay coûter réellement entreprise bi li ñu koy coûter loolu mooy kunéewu fiscal kon nag loolu mooy leeral bi nga xam ne Euh, moom lañ njëkk a mën leeral pour wax augmentation yii di ñëw ci busta paga yi ci salaire bi nekkul xaalis boo xam ne sa patron moo koy moo la ko yokkal waaye nguur gi moo ko may lam la doon dagg ak lañ ko doon dagg nguur gi am lum ci wàññi pour que euh, sa salaire bi yokk loolu nag mbokk yi wax dëgg yàlla ñu ngi ko jagleel ñi nga xam ne seen salaire mu ngi nekk diggante huit mille deux cent euros ci at mi ak yegg ba quarante mille euros ñi nga xam ne nag seen salaire dafa gën a tuuti huit mille deux cent euros ñoo ñu naam gaa amul dara lu ñu leen di dagg parce que fii mbirum taxe ak contribution ci salaire nous le demee maanaam su salaire bi gën a euros jëm ci presque yow duñ la dagg dara salaire bi salaire annuel nag wax waxuma mensuel mooy salaire annuel rédito salaire suñ wax ci at par weer di la ko euh, euh, fay kon euh, bi. augmentation bi moo di nguur gi dafa am lu mu wàññi ci impôt yi nga xam ne moom lañ doon lañ leen doon dagg di ko dagg sa datore de lavoro moom lay wàññi comme ça sa salaire am lu yokk lu ci ñëw maanaam la ngay touché lay dugg ci sa poche wala sa compte bancaire am lu ci mën yokk kon nag ñu ngi ko xayma euh, dem na bi ci augmentation bi ci gën a màgg mu ngi tollu ci 100 euros lu yokk ci salaire bi waaye loolu nag ñi am salaire bo salaire annuel nag lay wax maanaam at mi yëpp lay fay mu ngi nekk diggante 8200 euros ak 28000 euros Manam liy n'ek ci sa su fekkee mu ngi 8200 euros ak 28000 euros su boba ci loi cumul fiscal bi deux mille vingt dina am cent euros yoo xam ne dina ñëw yokk ci sa bulletin de paie waaye nag du sa datoore moo yëkkati ci xaalisam yokkal la waaye lañ la doon dagg ak lam ko doon dagg mooy wàññeeku ñëw yokk ci ci sa salaire waaye nag ñu indi ci benn benn leeral mbokk yi ne mbir moomu commencé wul mois de janvier. Je mu ngay le mois de juillet madame, ci 2020 moitié euh, à partir de juillet ba décembre su boba 600 euros lay le salaire bi nga gagné 2020 600 euros 2021 ci En à partir de janvier lay commencé En décembre mu mel 1200 euros dina le salaire.

ñu teg ci tamit mbokk yi ñi nga xam ne seen salaire mu ngi nekk diggante vingt huit mille euros ba trente cinq mille euros ñooñu li yokk ci seen salaire ci at mi yëpp laay wax nag mu ngi nekk diggante six cent euro ak quatre cent quatre vingt euros ñi nga xam ne nag seen salaire annuel maanaam li leen di fay ci at mi yëpp mu ngi nekk diggante trente cinq mille euros ak quarante mille euro seen salaire la ca yokk. à peu près 400 euros le, la la départ jëm ci souf lolu wax deug yalla moy li nga xamné moy lu bees li te ñàkkul ne gis naa ay groupe whatsapp jot ci ay message ñu naan euh, salaire yi dañoo yokk dem sen datore de lavoro di ko laaj salaire euh, yokk bi surtout nak travailleur domestique yi loolu dafa nekk lu automatique ci lam la doon dag mom lay moy wañéku te wàññeeku ba muy wàññeeku ci ñëw lay ñëw yokk léegi nag ñi nga xam ne nag ñu ngi doon fayeeku bonus ren si euh, ñoom quatre-vingts euros lañ doon yokk ci seen salaire euh, yokk boo xam ne nguur gi moo la ko ci doon defal ci sa busta paaka ñooñu wax dëgg yàlla duñu am cent euros bi maanaam ci quatre-vingts bi dañ leen ci yokkalaat vingt euros muy cent euros su boobaa. presque bonus rents bi day dugg ci connu cuneo fiscal 2020 euh, loolu mbokk yi mooy li nga xam ne mooy euh, li xew euh, ñu bañ ko réeree mbir te nag mu ngay commencer à partir de juillet parce que am na ñu ko dégg rek di laajte ne seen salaire di dem di wax ak seen patron te bu ñàkkul na sax peut-être seen patron xamu ci dara waaye nañ xam ne rek ne patron yi parfois ñoom du ñoom ñooy defar booste paaga yi ay société spécialisée yu mel ni ay consulente de lavoro ñoom ñooy defar booste paaga yi te ñoom machine biñ koy defaree suñ dugalee rek lépp loo xam ne am nga ci droit day ñëw yokk directement pour nit sàcc ci nit mënul nekk ndaxte soo ko sàccee tamit doo ko jëriñu te sàcc nag suy jëri suy sàcc day jëriñu kon nag bu ci kenn ndax kenn nañ wax ne rek mois de juillet lay commencé te loolu wax dëgg yàlla mooy li nga xam ne moo nekk ci 2020 euh, te euh, euh, bu ci kenn juum mbokk yi xam naa ne lii wax dëgg yàlla lu bees la ci at mi 2020 mais mu ngay déparé mois de juillet daf may may rek ma ubbi beneen bunt ci mbirum bulletin de paie mbirum busta paga nooy feye ko ñàkk koo comprendre mu nekk nag problème bu mag parce que ñun suñ busta paga ak suñ permis de séjour ñoo ànd waxoon naa ko ci premier numéro yi euh, busta paga ak permis de séjour dañoo ànd fekk yaa ngi am permis de séjour waaw soo demee ba am nationalité nag moom loolu moom kenn mënut laa laaj ñaata ngay gagné di la obligé ndax dañuy nangu sa passeport wala déet waaye su dee permis de séjour la daal wax dëgg yàlla loolu moom dafa ànd léegi nag gis nañ problème yi nga xam ne moo ci nekk. Euh, condition paiement yi wala condition versement contre contributi yi euh, yëpp amu ci euh, ñu ci bëri nag yi jaxasoo parce que da ngay liggéey at gis ne sa patron mosu la versé lay contributi lu am la naam gaa du lu bëri trop mais lu am la ay problème nag wala ngay fayeeku nga nekk opéra yi xamoo ban catégorie nga nga nga liggéey te catégorie yi dafa bëri loolu yëpp suñ mbokk yi xamuñ ko contrato li ñuy wax contrat collectif contrat collective national yi nga xam ne syndicats yi ñoo koy négocier ak organisation patronale yi nga xam ne dafa am minimum boo xam ne dañu war di fay nit ñi gis nañ ne wax dëgg yàlla euh, euh, jaxasoonoo ci biir xeli nit ñi mbokk yi fii ci rajo defaral suñu bopp ak ci euh, syndicat bi ñu taxawal muy sala ñu bëggoon lancer ci li ñuy wax consulence xool contrat yi yàgg def nañ ko defal nañ ko sax ñu bëri ñoo xam ne ci par par WhatsApp euh, mu nekk nag benn service wax dëgg yàlla service de consulence boo xam ne ñu ngi koy def di ko defal nit ñi pour xool ndax la nga contrat ba nga am ak lañ lay fay ak sa busta paage ndax lépp jaar na yoon mu nekk nag beneen liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla day ñëw yokk fii ci rajo defaral suñu bopp mais aussi day ñëw yokk ci syndicat bi mu ñu taxawal muy syndicat autonome dei laboratori africani nel mondo muy sala kon nak mbokk yi lii moo ñëwoon faram-fàcce ko ci mbirum cuneo fiscale te kenn ba ci réere mbir euh, wax dëgg yalla kon nak mbokk yi lii mooy rajo defaral suñu bop sen xarit Baye Diouf depuis Milan ñëw de len fram fàcce ci mbir yi xamna ne euh, ci jour yi di ñew mbokk yi Eh, dinañ defar émission beneen émission boo xam ne mu ngi concerné ci mbirum eh, këyit suñu këyiti consulat yi ak eh, wax dëgg yàlla nouveauté yi ci am surtout nag ñi nga xam ne dañoo am problème yi passeport problème yi passeport mu xale yi nga xam ne ñoo jaar ci géej gi te ñëw fii dëgg yàlla ñu yëg ci nag benn xew-xew bu am importance xam naa ne soo ñàkkul ci biir semaine bi dina ñëw faram-fàcce leen ko waxtaan leen ko kon nag rajo defaral suñu bopp

yéen bay leen njëriñ laa ngi ci suuf si def leen ni dem ba waa